Anta Sall moom mi xam ne les jeunes de Ribo Escale mën nañ ko wax ñi gën ci xam les arbitres yi xam ñoo nekk foofu ca euh, Ribo ñoom ñoo benn final depuis ko nag moom nag mu ñëw ànd nag délégation bu am solo ñuy seetlu ci kii di Moussa Kadam nekk inspecteur de sport mais itam euh, seetlu ci waa ODCAV bu bu Koungheul mais itam seetlu ci ay responsable politique yi xam ne ñëw nañ ànd ko ci bés bi ginnaaw staffam gis nañ ci délégation Ablaye Ka le maire de l'Escale ak délégation Madiama Seck bi xam ne moo leen dalal foofu ca Ribo Escale moom itam ñëwoon na ki ko dirigeoon di Ndiankou Gueye ànd ceeg Amath Ba mi ci loolu tamit seetlu nañ ci yeneen kilifa yi xam ne jéego nañ ci yeneen gox yi ñëw fekkee final bi xam ne euh, les jeunes de Ribot organisé nañ ko dippe ko Fanta Sall moom honorable député Fanta ba mu ñëw ci final bi tamit lépp lu xam ne final da koy lamboo muy coupe indi na ko des jeux de maillot ay enveloppe d'argent parce que vainqueur bi rek am na deux cent mille vaincu bi am cent cinquante mille équipe bi participé ku nekk am nga benn jeu de maillot boo xam ne mën ko yóbbaale sa loolu nag mu nekk loo xam ne lu solo la doxoon ci diggante ñaari ASC e, benn bi nekk Taïf Cekkeen ñu di bokk jë bokk jëf ak équipe bi xam ne mooy jamono bi xam ne sax mu mujj jël ndam li gañe ko benn bal si dara loolu nag taxoon na tim ay kàddu jëpp fa kii di Amath Ba moo njëkk jël kàddu ci turu jaune bi mais tim Fanta Sall mu mujj tëj kàddu gi bi xam ne moo nekkoon marraine bi ci final solo bi xam ne moom la ko jeunesse Ribo dippe woon ñu bàyyi leen rek ngeen déglu la fa xew ci final bu am solo boo xam ne doxoon na ci diggante bokk jëf ak euh, jamono bu Ribo man nuyu leen aussi ci turu président zone monsieur Amath Ba aussi itam ma jiite délégation bi nga xamante ni maire moo ko fi yónnee ma ànd ak ci ak Ndiango Gueye ak monsieur Mbaye Sow ak Amadou Ba bu Taïf euh, di leen wax kaddu monsieur le maire kontaan engagement am ak détermination am euh, mën nañ ko dalal fii Fanta ci Ribot Escale xam naa ne jombut fekkee déggante nañ ci téléphone Fanta xam na lan mooy ngantu am dafa jóge Dakar ñëw Koungheul ay cinq heures du matin am yeneen yitte yoo xamante ni yoo moo ko dab mu bëggoon fekkee bés bi lool parce que xam na ne Fanta càmme kii la am jigéenam la lépp lu muy def ci biir Ribot Escale moom la koy jàppal parce que tey lépp loo xamante ni war nañ ko def ci biir Ribot rek moom la war kon lu ci ne lu ci nit jàpp rek dafa mel ni daf koy jàppale ci liggéeyam ñu koy remercier bu baax di remercier aussi itam honorable député Fanta Sall parce que gis nañ li nga xamante ni moom lay def ci département bu Koungheul li taxoon nit ñi fal la rëcc wuñ ko parce que xam nga li taxoon ñu fal la yaakaar naa département Koungheul yëpp commune par commune amul commune boo xamante ni Fanta tegu fa tàngam te def na fa dara kon Fanta ñu ngi lay wax bisimilah fii ci Rufisque Escale ndaw yi ñu ngi lay tàllal loxo jigéen ñi ñu ngi lay tàllal loxo li nga def ci yeneen communes yi bugg nañ nga def ko fii te xam nañ ne dem ko fii def parce que loolu moo nekk sa engagement ci loolu ngay ci loolu ngay gontu. di la yóbbante aussi itam nuyoo monsieur le maire ci président de la république na xam ne fii njabootam ñoom ñoo fii ne te aussi yéen yéen ay nekk tant président de la république yen ay nekk budu président de la république na ngeen ko bayil kër ribo bu baax moom amul lu dul ribo lépp am ribo moom moo ko ginal di leen sant bu baax nag mu ne tey li fa di ko ginaloon mooy fekkee bés bi di wax rek moom ci li nga xamante ni jàppale na ko ci bés bii nii ne mu ngi koy keeb lool yokkee woon na enveloppe bu cent cinquante mille francs jël na euh, cinquante mille francs ñaari ASC yi nga xamante ni ñoom ñoo doon football ASC bu ne jox na ko cinquante mille francs pour mu jàppale ko ci añ jox na arbitre yi nga xamante ni ñoom ñoo organiser cinquante mille francs mu nekk cent cinquante mille francs mu ne mu ngi koy keeb lool nag lépp lu mu fii def nag teewoon bés bi moom moo ko ginaroo maa ngi sant ñëpp di honorable lay dalal fii ci Ribo ah di nuyu de passage la commune de Lour Escale bi nga xam ne moog Ribu Escale benn lañu kon ñu ngi leen di dalal bu baax di leen wax ñëw ngeen seen commune ñëw ngeen aussi fi ngeen dëkk honorable député dañuy dolli tuuti rek ci li monsieur Amath Ba wax euh, dafa mel ni wax na lépp rek mais du ñàkk am na ñu ci mën a dolli. ah ginnaaw bi ñu la gisee ci Rufisque Escale suñu xol dafa gën a set suñu yaakaar mu ngi gën di ñu jege yaakaar bi nag dañ ko am dañ ko yàgg am yàgg la ko xaare ba gis la fii tey ci Rufisque Escale bon yaakaar bi mooy lan tey benn ñi nga xam ne ñoo ëllëgu réew mi di ndaw Rufisque Escale bokk ci ëllëgu réew mi xew la nañ gis nañ sa calendrier nu mu chargé mais nga ne kat njàngoo lu ma xat xat xat dinaa def sama tànk riba dinaa nangul ndaw ñu seen bés bi mu doon lu rëy doon lu am solo non seulement nangu nga ko mais mënoon nga ko nangu yable mais da kaa nangu ñëwal sa bopp Ribot Escale te Ribot Escale namoon gis nga daagu fii ci commune bi donc honorable bienvenue encore dans la commune de Ribot Escale bi am yoo xam ne dañ la ciy xaar parce que ku gis foo jooyee da nga fa jooy naam monsieur ma maire Madiama Seck def na fi lu rëy rëy ci commune Rufisque Escale dara gën te neex ñu ne tegg nañ buumu njaam Rufisque Escale te loolu su amee c'est grâce à monsieur le maire Madiama ku ne xam ne Rufisque li mu doon dund ku ne gis na it léegi li fi nekk donc dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaaral ñu gis yoo xam ne yaa ngi koy dox si biir département bu Koungheul tey fu nekk yaa ngi fay dugal sa loxo yaa ngi fay dugal sa lépp ba jàmm gën a am foofa donc loolu dañ la koy xaare fii ci commune Rufisque Escale bi ñuy njëkkee mooy gis nañ ne mini forage yi fu nekk mi ngi daw si département bi te yaa ngi fa yóbbu donc loolu bëgg nañ ko ci commune Rufisque Escale parce que liggéeyu nawet kese ko xaar yaakaar naa dina gëna a métti si jafe-jafe yi nga xam ne moom ngay dund kon bëgg nañ vraiment ci sa mën-mën ak fi nga daan dem di ko jëli nga indi si commune Rufisque Escale di këru soxna yi ah dafa nekk chantier vraiment lépp lu ci war pour mu yomb rek monsieur le maire équipe bi taxaw nañ ci ba loolu mi ngi mi ngi mi ngi nekk en cours de construction donc liñ lay ñaan mooy buñ tabaxee ñaan nañu am li nga xam ne moom la jigéen ñi di liggéeyee vraiment soxla ni équipement donte am nañu ko ci commune bi mais soxla ni équipement bu jógee ci honorable Fanta Sall ñëw ci jigéen ñi Rufisque Escale parce que tey may ku ne xaalis yomb na yombul mais dimbali ñëpp ñu ko ko liggéey loolu lañ soxla ci honorable donc ñu lay sant bu baax di la gërëm di am kontaan bu mat sëkk xam ne tey li mu fi def yaakaar naa ne ku nekk daw na fii ay ati at te mënoo ko biir ribu parce ku la déggoon na ribu la fi nekkoon ci jamono yu wees mais moom li muy nekk nekk xale fexe na ba faxas loolu fexe na ba raxas xol fexe na ba ndaw ñu ànd tey ba bokk fii di foli ree donc Mor Niang vraiment gàcce ngalaama di la fi ne am nañu yoon pour demander appui pour ambulance yi bu escale naam soo ñu mayee ambulance ñu jël appui boobu nag génn na mais ñun gisuñu ko très sincèrement parce que lépp looy def nit buy liggéey kenn warta suul la muy jëf nit buy liggéey la muy jëf dañ ko war a wane fan koy jëfee ñu en tant que CDS loolu dégg nañu ko sa appui boobu rafetlu nañu ko parce que bëgg nga askan wi moo tax biñ la waxee amoo ci xel yaar mais loolu gisuñu ko donc nañuy jàppale suñu bopp ba lépp lu ñuy wax leader yi lépp lu ñuy wax kilifa yi mu jëm ci askan bi nañ fexe ba mu yegg ci askan bi foo doon tëjee je vous remercie Euh, juste rek di ko wax ne mu ne on est des jeunes ay ndaw lañ si si diwaan bi nga xamante ni mooy diwaanu Rufisque Escale ay villageois lañ tamit maanaam dama ne leen politiciens yu bari dañuy fàtte villageois yi parce que ne politicien bi falu rek jàpp naa ne ñun ñoo leen fal parce que ñooy majorité be te boo seetloo dañuy fàtte bu baax a baax te bi ñu gisee yow mi nga xamante ni mooy honorable député Fanta Sall mu nekk euh, jigéen bu man góor loolu laa koy wax dama naan ko royukaay la ah man boog dama naan ko man idole laa ko def donc bëgg nañ na bu baax waaye tamit bëgg yëg moo koy fay vraiment dina dolliwaat wax ñun jeunesse bu Rufisque Escale rawatina ñun jigéen ñi ñu ngi lay joxaat suñu bopp bu baax. mais aussi di nuyu délégation bu monsieur le maire. Madiama Seck bu Rivo Escale franchement kontaan nañ bu baax a baax ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di wax ne monsieur le maire gis nañ yóbbante bi yóbbante bi yegsi na muy euh, cent cinquante une cent cinquante mille francs franchement kontaan nañ bu baax a baax di ñaanal mën ngi yokku mais suñ jógee ci loolu aussi ñoo ngi nuyu suñu suñu député suñu honorable suñu lépp mën nañu wax muy euh, honorable député Fanta Sall franchement tey dañoo kontaan dañoo kontaan de trop parce que yaakaaruñu woon lii dëgg la nag instant bi ñun ñoo a deseel parce que ñaanoon nañ yàlla tey lii xew bi ëpp nii mais xew-xew bi bu fi am bi Rufisque Escale moo tax ñoo ngi jégalu bu baax a baax a baax ci lu ci jot am yëpp parce que boo xoolee daanaka waa Rufisque Escale tey ñu bëri génn ndax daa benn xew-xew bu fi am te xew-xew bu loolu suñ coobaree yàlla moo ko dogalee noonu moo tax ñoo ngi ciy sant bu baax bu baax a baax di wax ne aussi yal na fekk moo gën ci ñun mais yal na fekk aussi moo gën ci honorable député Fanta Sall su loolu weesoo Fanta ah maa ngi jégalu sax honorable député Fanta franchement tey kontaan nañ kontaan mën nañ ne tey ñun arbitre Ribot Escale mën nañ ne aussi ñun la jeunesse de Ribot Escale tey am nañ la delloo am nañ la tey njukkal boo xamante ni tey ñun ñoo la ko yoreel comme ça ñun ñoo la ko yoreel nag ñun ñëpp xam nañu du ñu waxantu du ñu nekk aussi di wax loo xamante ni nii gëmuñ ko non non duñ ko def tey final bi tey damaa ñëw toog sa saal nga wax ma say conviction ma wax la aussi samay conviction lii laa ci gëm nga wax ma aussi ma lii laa bëgg a def ma ne la mën nañ koo def nga ne ma mën naa koo def tey yaakaar naa ne loo ma waxoon tey dépassé ko ko sax parce que lii yëpp tey xaaruñ ko woon xaaruñ ko woon franchement coupe bii mën nañ ne musu am te lii du dara lu dul tournoi comme ce tournoi la nag benn tournoi boo xamante ni juste première édition la waaw tey ñun ñu ñëw tey yëkkati tey honorable député Fanta Sall tey ñëw sagalee ñu nii franchement ñu nit duñ def dara lu dul tey delloo ko njukkal te njukkal ñu koy delloo Fanta mën nañu wax ne tey amel nga amel nga am nga fi am nga fi maanaam nit di woy Escale tey am nga fi Mor Niang loolu dama koy seede ci kanam mbooloo mi yëpp na leer Fanta tey yëkkati nga ma yëkkati boo xamante ni tey man Mor Niang billahi man Mor Niang yow deseloo tooma dara man maa la desee te incha allahu rabbi te man ñaan naa yàlla fay la bor bi biir commune bu Louga Escale te incha gëm naa ne dinaa la fay bor boobu noonu bu soobee yàlla dinaa la ko fay incha allahu rabbi lu ci deseeg mooy ñu ñaanal ñu aussi di sant aussi suñu grand yi ku ci mel ne Amath Ba président Somburibo amuñ sa fay amat parce que tey lii yëpp bu taxawee yow la yow yaa njëkk a jël tey. su également ñi nga xam ne ñoom laa àndal jógee Lour ñi ay conseillers municipaux ku mel ku mel ni Talla Gueye ku mel ni Demba Diallo ku mel ni Makaba ak sunu chauffeur bi Aliou bés nag du tuuti borom lay tollool yaakaar naa ne damay faral di ko wax l'honorable député Fanta Sall ci la le département de Koungheul xam ne am neen un vrai représentante à l'hémicycle parce que gis neen à chaque fois mu ngi jël les doléances du département di ko yóbbu ca pencum ndaw réew ma di ko fa joytu te loolu yaakaar naa ne bokk na ci lu tax ñu tànn ñun nag suñu ñëw fii du hasard parce que tey jàpp naa ne lii ñun ñoo ko waroon def te mënuñu ko comme mënuñu ko nga defal ñu ko dinañ la ci sant gërëm la ci bu baax donc jërëjëf honorable Fanta Sall une enveloppe de deux cent mille ñeent fukki junni mu ne li ma ciy teg mu ne dinaa teg un jeu de maillot dinaa ci teg trophée bii muy coupe bi nga xam ne amul ci département bi coupe bi nga xam ne amul ci région de Kaffrine mu ne su dinaa ko jox fanweeri junni cent cinquante mille jeu de maillot plus ballon mu ne yem ma foofu ASC yi participer ku ne dina am jeu de maillot mu ne yem ma foofu indi naa ñetti bal pour ñaari ASC yi gagné ñi football ci terrain bi benn bal bi moom lañ footballee ci digg terrain bi mu ne yem ma foofu arbitre yi dinaa leen solal sañ sañsel leen jox leen ay mayo yem ma foofu mu ne dinaa leen jox un tableau tableau boo xam ne amuñu ko woon yemuma foofu mu ne dinaa leen jox une enveloppe financière pour l'organisation de cette grande finale deux cent mille francs qui peut le plus peut le moins càlleen càlleen bi qui peut le plus peut le moins càlleen càlleen baa ngi noonu aleykum waa commune o Ribot Escale maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di am métier bu baax nag yëkkati fii kàddu waaye ku nekk xam na ne jàpp ak pexeem yàlla ak dogalam waaye mel na ni mi fi teew waaye yón ndax yónni na fi délégation bu am solo Amad Ba jiite ko ak ñoom njàng ko at ñi ci fekk ñëpp ci commune bi suñu nuyoo waa Rivers Escale yëpp di leen suñu responsable yi fi nekk te yàgg aussi di ñu jàppale lu jëm ci liggéey bi ñu ànd ci ak ñoom ci mel ni Khadim Boman man ngi koy nuyu bu baax di rafetlu aussi engagement ndax nit ku gore la bi ma jàppee ba léegi yàgg na di nuyu ñoom Pape Diop Khady Seck waataay fi yëpp maa ngi leen di nuyu Modou Yama Seck ñëpp naa leen maa ngi kontaan bu baax a baax ñëw fii fekk si sama frère Mor Niang ma koy sant bu baax di ko gërëm ci occasion bi mu mayaat ma ma ñëwaat Rivo Escale ndax bi ñuy campagne ñëwoon nañ fi ñu jàppale ñu boobu ba léegi yàlla dogalul ñu dellu si fii mu am bésam bu am solo bi tuddee ma ko muy final bu mag bi Mor maa ngi lay gërëm di la sant bu baax ci yi nga jox ma yaa ngi may gërëm mais man maa la war sant gërëm la ndax lii nit ñi wax ci yow rek doy na sëkk ndax xale bu gëmee boppam dëggu nekk jàmbaar a ah kooku moom ñun amuñ fayam te ñu bëgg aussi jeunesse bi yëpp roy ci moom comme ni ko ñëpp waxee mais occasion boobu dañ ciy gërëm mon frère jàngugee ndax kat dafa defoon témoignage boo am solo ci moor tey mu defaat ko loolu nit ku am xol ki ñaan mënu ko te su ko neexoon du ko def mu seede ay kàddu yu rafet ci moor mii te tey foog naa loolu la dëggalaat kon moor jërëjëf ñi ngi am yaakaar bu baax a baax ci yow mais département bu Koungheul aussi am yaakaar bu baax ci yow nañu ku nekk xam na ne Ribo aussi dafa nekk commune boo xamante ni am na lu fi xew waaye njàng wax na ko kon tey boo ñëwee joxe sa engagement Mor ah dañuy ñaan loolu yàlla na ko yàlla dëggal di la wax ne la engagement boobu nga joxe man nangu nañ ko nangu nañ ko te incha allah dinañ ci ànd ak yow dinañ jàppalante ak yow mais ñi ànd aussi si dëgg taxaw suñu département bi ba mu jëm ci kanam liggéey suñu département bi ba mu jëm ci kanam ngeen baal ma a xëy na damaa sonn te damaa kontaan moo tax daanaka wax ji jarul sax muy gudd kontaan naa daal lii ma indi leen xet naa ko trop ndax wax yàlla mérito ngeen lu ëpp lii waaye di xel rek lii daf yoon boo xam ne fi laay duggee Rivo Escale te ñaanuma yàlla mu yem maa ngi ci kanam maa ngi seen ginnaaw ci lépp loo xam ne ngeen ko bu soobee yàlla man loolu sama yitte maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm wàllu Escale ndax ku wax Rivo Escale wax Lour Escale te Ousmane Ka aussi sama xarit la nit ku baax la mu envoyé délégation bu am solo bii nga xam ne bi tey bu ñëwoon rek doy na na ñeneen ñi ci topp ñu ngi gërëm aussi Madiama Seck bu baax ak Amath waxal ma ne ko li mu def yëg nañ ko sant nañ ko ci gërëm ko ñu gërëm aussi équipe bi nga àndal ci liggéey bi yëpp waaye lii aussi bu ñu ko mënee def am na sécurité boo xamante ni ñëw na assuré ko ñu ngi gërëm commandant brigade bi bu baax ci liggéeyam ak taxawaayam maa ngi gërëm ASC bi nga xamante ni dañ moo gagné mais aussi di félicité ASC bi nga xam ne gagné na di ñaan aussi yàlla na leen jik ndax man dama am tournoi bu mag di ko teg Koungheul yàlla dogal bii passé nekkoon 3 millions ma nekk député nag département bi xal ma ne bëgg naa tournoi bu ma koy tegaat département bi yëpp joué ji léegi nag maa ngi leen di déglu di déglu ñi nga xam ne ñoo koy organiser buñ ko organiser fas naa yéene tegaat ko bu dee suba la muy suba bu dee ginnaaw suba la muy ginnaaw suba te bëgg naa waa commune bu Rufisque Escale aussi bokk ci ak département bi yëpp merci. incha allah oh là là tey jàlleen jàlleen bi macha allah yal na yàlla def teb yal na yàlla xeeb dolli ku lay xaar yal na xaddi merci beaucoup la jeunesse merci beaucoup tout le